Ah, voilà tey ñuy dalal euh, sëñ bi Diop euh, Mame Thierno euh, jiite àll ak marché ci association commerçants industriels du Sénégal ñu gën koo xamee ak sis ñu lay nuyu di la dalal. maa ngi uh-huh. amal waxtaan wi jamono ji nga xam ne ñoo ngi ci wàccaayu tabaski tey lan lañ mën a jàpp justement marché bi jëm ak bon li ñu mën a jàpp rek mooy soxla bi pomme de terre bi am na mais nag li ñu xaw a jaaxal rek mooy njëgi li mu li mu yokkoo parce que boo seetloo fukki fan ak juróom ci ginnaaw rek daanaka saag comme saagu soble yaa ngi ko doon jënd cinq mille cinq mille cinq cent te alors grande surprise bu ñu duggee ci marché bi commerçant yi ñu ngi koy jaayee ñu ngi koy jënd sept mille cinq cent huit mille te li nga ne saagum yokk ci lay gën a am loolu nag mu doon lu ñuy jaaxal parce que ñoom ñoo jàpp ne soble pomme de terre comme suuf bi mm-hmm. na mun na yokku mais yokk warul àgg fi mu àgg mm-hmm. tey jii euh, saa bu ñu jubee fête grand euh, grand événement religieux ñu gis ni commerçant yi dañuy faral di ko yokk li ni mel ndax foogu leen ne mooy pousse euh, justement sénégalais yi ñu daal di wutali yeneen produits yi nga xam ne dañ leen a jéggaane. xam nga tey xam nga tey bu dee en ce qui concerne pomme de terre pomme de terre sol bi dañoo aay dañoo aay importation bi. Mm-hmm. pour que véritablement producteurs locaux yi mën a jaay seen i mais tam bu ñu aayee importation bi di leen protéger aussi tam euh, ak ñi nga xam ne ay intermédiaire nekk si diggante war nañu a ba nga xam euh, euh, parce que ñun loolu mooy suñu souhait tey mm-hmm. parce que comme li ma waxee léegi ñun tey certes nous nous protégeons le consommant les les commerçants mais aussi nous sommes des mm-hmm. man mi di wax ak yow tey damay jënd pomme de terre ak soble pour yóbbu sama kër su ma ñëwee li am ci marché bi laay jëndee mais damaa jàpp ne commerce bi maanaam dañoo war a ba nga suñu bopp mooy boo xam ne nii ah nekk da nga gis sa bopp daal. Mhm. ci gis bopp googu gis bopp googule sax euh, monsieur Diop dañuy faral di dégg euh, parce que ñun dañ koy am waxtaan ak producteurs yi ñu ñuy wax ne prix bi nii lañ ko jaayee commerçant bi ñu gis ne boo ko jëndee ca commerçant bi njëg li dafay woroo maanaam dina am sax léeg-léeg double producteur bi wax ne moom la jënd li ni mel ko mën a expliquer xam nga soxna xam nga loolu bi mais commerce bi léegi ni mu ubbeekoo hmm. ku nekk da nga naan kii woo jaay li nga yor jàpp naa ne kenn jënul sa produit pour téye ko di ko yokk yenn yokk yi eh, dafa dafa am ngi naan ay courtier yu nekk ci ay intermédiaire xam ne foofu lay yokkoo mais généralement comme ça de saabu soble bu mhm. ko tegalee mille francs wala téeméer da koy jaay pour wuti leneen xamante bi tey tolootul foo xam ne def naa naa téye di jaay ko am ci nangam sax soo daa ubbeeku mhm. boo demee partout à Dakar c'est des marchés partout à Dakar on vend bokkut ak bu yàgg ba mhm. kon nag li am solo yàpp naa ne problème bi tey tey mu commerçant revendeur bi jaayaat mais ngi nekk diggante producteur bi ak intermédiaire bi nekk si mm-hmm. foofu daal la petit bi dinañ jàpp ñun kon tey ci gàttal euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy consommateur yi euh, jamono ji ñuy àddu euh, mën nañoo jàpp ne bu ñu demee jëndi dinañ fekk njëg lu yokk ah man de loolu laa gën a loolu la joxtu gën a may daal parce que daal li mu gisee muy yokkee daal xam naa ne xam na nag a exagéré àgg fenn am moom Mm. yokkute dana am mais parce que man gis-gis boobu la am ci marché bi parce que tey suba rek mu duggee ci marché bi laaj ko saagu soble xam nga am lool damaa gis ne yokkute te ñi koy jaay nee nañ ma kat ah ñoom dañ cee xaw a jaax parce que li muy yokkoo jaaxaale na lool lool parce que ñu mën a jënd tey suba ñu demaat prix bi yor mm-hmm. tam nit ki tam bu jëndee tamit day jënd pour jaay pour am dara mm-hmm. mais jàpp naa ne loolu tam état bi moo war a ñëw su yoroo loolu régulé fixé benn prix le tour xool ndax am na assez de pomme de terre assez de assez d'oignon pour mën a kat prix bi li dañ ko war a jaayee. donc mm-hmm. rek ñu teg la ci yoon Mhm. kon daal état rek ci mën dara maanaam organiser marché bi de telle sorte que. njëg yi ñu loolu loolu état la rek organisation d'un marché état moo ko war a organiser surtout si le produit existe fekk produit bi am na. Mhm. mën nañ ci am lu doy état moo war a ñëw taxaw ne kat jaay leen nangam. ok kon. am na ku nekk da nga sa bopp daal. Euh, kon euh, soble ak pomme de terre am na ñoo ci période am. waaw am na moom wax dëgg yàlla. marché bi amul bu njàkkare am bu ci tàngee am ci tabaski bi ne dina ñàkk. non jàpp naa daal mun naa mun naa bañ a ñàkk. taw bi commencé aussi léegi am léegi ak qualité soble pomme de terre bi xañ a surtout qualité soble pomme gis ci marché bi daanaka pour mu toog lu yàgg day xaw a jafe. Mhm, mhm. kon dafa war nañ cee gën a liggéey war a ay mot ay moyens de conservation ay ay méthode de conservation. Mhm. parce que am nga boo bayee mu mu doy. ba pare tam li nga bay mënoo koo sëriñ koo denc lu yàgg loolu day day mel ne bayoo kon nag on doit penser à la conservation euh, soble bi ak pomme de terre bi nu xool naka lañ ko conserver xam daal boo xam ne li ñu béy danañ ko a jaay mu nekk en retard après trois jënd ko mu nekk pomme pomme de terre soble euh, bi nga xam ne commerçant yaa ngi koy dund muy la xew ca Ukraine ak Russie tey lan moo ci seen euh, jafe-jafe bon jafe-jafe yu bëri na parce que am na produit yoo xam tey jii ñu ci dëkk a on a du mal à retrouver sur le marché wala boog bu ñu koy gis tamit xañ na du doy te tamit kenn xamul fan la jëm euh, ñun nag li ñu procuré au niveau de mooy que ne ñu jéem a xool am beneen doxalin parce que artiste bi léegi boo seetloo rek c'est ay am répété kon nag li am solo rek mooy ñun ci gis xool naka la ñuy bayee ba pare li ñuy bay ñu koy dundee foofu la ñu war a jublu parce que moo xoolee ñu suñu dëkk yi nga xam ne tey am nañu am nañu sol am am nañu jan am nañu suuf am nañ xale yu am nañ ay xale macha allah ah war nañ jéem a xool en en temps trop rapide naka la duggee ci bay yi comme dëkk xam ne amuñu sax ñooy bay nekk da ngay xool dëkk mel ne Israël ni ñu di fa may mën a may doole mooy ñu fexee dooleel mbay mi ba nga xam ne tey ji li nekk daanaka li ñu bay lépp dañ ko dañ koy tuute boobaa dana dana tax tey li ñu doon wut yi di importé ji xaalis dana nekk dëkk bi ñu ci liggéey dañ ci gis bopp jàpp naa daal foofu la war a gën taxaw foofu la war a gën a liggéey. kon euh, jafe-jafe yi dafa ni yéen da ngeen amatul yenn produit yi nga xam ne ñoo ngi jóge Ukraine wala Russie. bon en fait xam nga en fait bu ñu xoolee marché bi ba léegi produit xam na mais xam mais tam bu ñu demee guerre bi di gën a yokk. guerre bi di gën a dem kenn xamul fan lañ jëm. parce que dañuy dañoo am dépendance. Hmm. te dépendance boobu nag moo wërul ci àddina bi ñu nekk léegi. boo xoolee kuréel à un moment donné am na benn zone ñu ne ñu ah bu ñu dawalee quatre mois Sénégal bu affaire yëngu Sénégal daan am problème xam nga loolu kon dafa xaw a doy waar. Hmm, hmm, kon nag il est temps ñu gaaw réfléchir xool yan politique am ñu ko teg pour am quantité vraiment quantité suffisante c'est que liñ soxla ñu mën ko ñu mën ko mën di ko dundee. di ko dundee. di ko bay di ko dundee voilà donc mais yan produit la concerné exactement directement. justement bon bu xoolee fële côté gaz bi la ak blé beeg yooyu bu côté côté crème beeg yooyu ñoo ko gën a concerné. léegi ah, lan mooy expliquer yeneen prix yi ñu jékki-jékki ñoom ñëpp. Euh, am ay bés mooy mooy li ma wax léegi rek tubaab mooy dara léegi boo xoolee taux fret bi dafa yokk carrément dafa yokk bu baax a baax a baax a baax. Uh-huh. ñaareel ba ñun bu ñuy jëndi bu ñu la CFA dañ ko convertir en euro en dañ ko convertir en yen. Mm-hmm. ce dañ am perte boo xam kenn xamul nu mu toll. aw peut foofu cent nga convertir ko en dollar doo ko jënd en yen da nga perte daanaka huit millions wala neuf millions xam nga loolu daa bëri. Mm-hmm. kon nag li ñu war a xeex ñun mooy fexe ba xam suñu monnaie day compétitif par rapport aux ñu bañ loolu bu ko deful rek dañuy gën a sonn daal. Mhm. huile bi muy euh, diwlin gi moom fan ngeen koy jëlee. diwlin gi Malaisie danañ ko jëlee Malaisie mais ne day arrêté importation yi. Mhm. kon nag war nañ cee xalaat man damaa jàpp ne ñun li ñuy bay ci gerte. Mhm. Euh, war nañoo mën a am diwlin ñu doy. par exemple man damay procurer état aussi à ce que mu arrêté l' importation euh, de de am na fu muy toll sax li nga am da koy téye dundee ko. ñu xool naka la ñuy jëlee seen arachide là def euh, ñu xool naka la ñuy industrie ndaw ñooñu def ko ñooñu def ko de suñ bare ñu jox ko Sonatel mu mhm. mhm. ba litre d'huile boo nekk à mille cinq cent francs te diwlin bi boo xoolee lépp produit la te ñun lu production de l'arachide kon donc war nañ xool suñu arachide tey naka lañ koy gën a yokkee chaque année tey dañ mën a dinañ ci mën a am huile bu doy boo xam ne nii euh, mooy gën a nekk qualité boole ci ndax loolu dafa firnde ne yéen jamono ji li ngeen di jaay amu leen ci benn bénéfice. non jamono ji moom bu ñu waxantee dëgg rek soxna si commerce bi ñu def on fait un commerce de survie xam a ne dëgg da jaay kon yéen da ngeen di ñu vendre à perte daal dama la bëgg xamal daal booy jaay ñaare da jaay pour am pour économiser pour que tam jéem a xool revenir parce que commerce gi ñuy def ñun tey amul retraite amul dara kon nag euh, warul nekk loo xam dañ koy jaay rek du def mu ja tey déedéet war nañ mën a jaay am dara mën a épargne mais épargne boobu nag tey a da wax sànq concours de circonstances yi nga xam ne boobaak léegi mu ngi topp ñii di commerçant yi muy mbas mi tey euh, la mhm. xew ca Ukraine ak Russie ndax mën nañoo am ci xayma justement en tant que industriel bi nga doon li ni mel euh, fan la la yóbbu justement ci sa liggéey non boo xoolee daal at yi yëpp ñu nekk di liggéey dañuy liggéey rek pour maintien dañuy parce que xam na xam naa ne situation bi ñu nekk tey mënul permettre ñu yenn bénéfice dañuy liggéey rek euh, téye suñu koom téye suñu liggéey mais métti na lool mais tamit aussi àdduna moom bi loo noonu mm-hmm. ay at moment difficile mm-hmm. boo xoolee tey am na kër yu bëri yoo xam ne ni tëj nañ am na am na ci ay perte d'emploi te loolu tamit baaxul ci réew mi tam boo xoolee tey le secteur informel euh, li mu yor li mu gàddu ci PIB bi ak li mu gàddu ci économie bi toll na foo xam ne ni tey war nañoo fexe ba xam ne secteur boobu ñu protéger ko ñu doole ko parce que tey day porter l'économie ñu gis ay dëkk yu bëri bu ñu tollee ci période de crise bi ndax noonu lañ ko mën a jàppee sa sa secteur euh, privé euh, nekk ci ay jafe-jafe nguur yi dañuy jóg def ci dara tey yéen fan la leen état Sénégal taxawoo ah ñun de li ñu gis daal mooy que ne ñun xam ne son daal secteur informel gisuñ suñ gis taxawu moom gisuñ suñ bopp ah, tam boobaag léegi xaj na boo xoolee artisan yeeg yooyu yëg allégé ñu ko ngeen yëg ah, en réalité taxi yi sax taxi ko dañ ko a a ah, la prélèvement le PC ce qu'on appelle le prélèvement de a nekk ay taxi yoo xam ne tam day dugg ci kii am na xam ne taxe portière yoo xam ne ni ay multinationales

consortium pour ñu mën a ànd ensemble di defandoo ensemble di euh, di a amandoo dara ensemble. ñuy interpeller industriel bi nga doon ci organisme génétiquement modifié yi lan moo ci sa xalaat justement. Euh, xam nga tey jii yooyu bu ñu ko bàyyee mu jàll euh, xañ na day dugal lekk goo xam ne lekk bu doy waar la parce que lépp loo xam si su ci na tànnatal rek ça peut créer des problèmes xañ na tey rafetlu nañ ko mais boo xoolee sax tendance bi léegi en Europe les gens préfèrent manger bio. waaw parce que moo dañ naan de la nouvelle bouffe comme benn xarit bi ñu ñëwee bi ñu jógee Amérique ñëw Sénégal wóor ci kenn ci di fi implanté wu vraiment yéen affaire bi dugg na fi de da ngeen am problème de tey boo xoolee problème obésité yi ngay gis rek problème tension yeeg yenn problème maladie yu bëri yooyu

ak loi bi jëm ci loolu daanaka Sénégal léegi aligné wu na ci texte yooyu le euh, justement yaa ngi nii di def benn plaidoirie euh, mu mel ni suñu dëkk ñoom leneen la ñuy doxee. amuñu suñu dëkk yi des fois dama jàpp ne ñu nekk député yi bu ñu voté dara. Hmm. duñu xool les principaux concernés wala duñu xool aussi conséquences yi. Hmm. tey ça va pas seulement toucher le commerce mais ça va toucher aussi l'agriculture. Hmm. Ah, la santé aussi yaa ngi dégg non ñu ngi tudd impact yi ñu njëkk dafa mooy dana touché agriculture dana touché élevage dana touché le commerce parce que ñooñu seen produire tolluñu fi ñu producteur te ñooñu tey boo demee mooy méthode yi ñu am pour engraisser pour ñu di mën am yenn production yoo xam ne OGM di kenn ñun amuñu ko mm-hmm. ñun nag li am solo mooy ñu préserver la santé de sénégalais mm-hmm. te loolu on peut pas loolu mënuñ koo def tant que demande à sénégalais ñu lekk bio ñu lekk ce que parce que mu nekk la nga yellool gàncax yàlla jox jox na la ko pour nga fajoo ko mm-hmm. kon la ngay lekk sa la ngay lekk moo la jikk mais bu ñu toppee cette alimentation là importée di ko a fu a di ko fi indi ah on risque d'avoir des problèmes de santé publique ça ça risque d'être un problème de santé publique am na ma ci bëggoon a yokk rek. Euh, lu ndaw waaw waaw waaw. ak situation bi nga xam ne tey politique bi nekk si dëkk bi tey. waaw. xëy na sax y a un début de solution. Ah. mais nous demandons à ce que cela continue. d'accord parce que en tant qu'acteur économique. waaw. loolu enragé wu ñu ñun en tant qu'acteur économique. d'accord donc stabilité bi day joué tey ci commerce bi. dëgg donc nous demandons à, aussi bien xoolaat seen i position parce que véritablement ñu mën ñu mën a bâtir le seen ce pays là. d' donc politique bi ni muy doxee jamono ji daal yàq na gàllankoor na seen liggéey. ah ah soxna si bu ñu nee dara am na tey. Mhm. alkaati yi fees si day ragal. dëgg la. waaw ba bëggoon a dugg ci yi. li ñuy xalaat ñun li ñuy dund ñun en tant que commerçant parce que ñun de la politique. nous sommes nous sommes ndax situation autosuffisance autonome mais teewul tamit loo xam ne day impacté bi am nañ droit wax ci te jàpp naa ne dëkk bi tey fi ñu toll mooy dañoo war a ñun ñëpp booloo ensemble base de ce pays hmm. pour que euh, suñu maam yi ak suñu bàyyi dëkk bi instant bi ñu bàyyiloo ñu mu ko ñu mu ko mën a fi suñu doom hmm. bàyyi les intérêts particuliers hmm. les œuvres pour des intérêts généraux damaa jàpp ne loolu bu ñu ko bu ñu ko dee def rek dëkk ah li tax nit ñi doy seen bopp dañ jàpp ne xañ na tey politique bi mooy la moyen bi gën a gaaw pour am alal mais du moyen bu gën a gaaw pour apporter des solutions par rapport au loolu nag dañ cee war a gën a xalaataat gën a gën la politique ñoom ñoom ñi nga xam ne ñu des acteurs politiques hmm. gën a xam ne tam ce pays là dañ ko war a liggéey pour que ñu mën a émerger pour que ñu mën a boo xoolee am na dëkk yoo xam hmm. ñu hmm. tamit ay nit ëpp ñu kon nag li am solo rek mooy que politique yi di défilé di teg loo xam ne nii wax dëgg yàlla senegal dañ ci mën a taxaw salaam. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax. sëñ bi Mame Thierno Diop. waaw ñoo ngi jégalu nag ci kàddu yi xañ na bu amee loo xam dëgg na ci rek su ñun la. mais ñun ñun ñun acteur économique lañ Sénégal lañ investir ne ci ñaan yàlla réew jëm kanam ñun tam ñu def mën a jëm kanam pour ñu mën a gis bopp daal maa ngi leen maa ngi bu baax a baax yéen waa Rewmi FM wax dëgg yàlla euh, di gis